président CNG course bi monsieur Lamine Diop jàmbaar jooju nga xamante ni wax naa ne ku yokku la ngaa wàññi waaye ku yokku la ku nga xamante ni bi mu ñëwee ci course ak léegi yàggul waaye dox na ay jéego yu am am solo mbokk yi tey nag seen mbokk seen xam ne jom bay peex fas yéene ñëw rek waxtaan ak yéen ci wàllum course hippique waaye waxtaan ak yéen euh, ci jamono ji ni mu tëddee rawatina lépp nag jëm ci course ndaxte ñun euh, course rek lañ xam euh, ci lañu juddu ci lañu nàmpatal Euh, te ci la ñuy wax moo tax saa su ne eh, buñ dee wax it eh, ci wàllum course hippique rek la ñuy génn wax leneen lu mu mënti doon ñun amul ci yàq amul ci defar waaye bu fekkee course hippique la lépp loo xam ne dégg nañu ko ci mooy lu baax muy leneen lu négatif dinañ ci jël suñu ay ay ay wax ci li nga xamante ni moom lañ ci xam euh, moo tax tey ñu defaat suñu sortie bu am am solo bii euh, ci seen seen bu mag bi nga xamante ne moom la ñuy wax seen course di ñaan bu baax ngeen abonné te xam ni seen YouTube bi seen seen YouTube la yéen ñi nga xamante ne tur fi si ngeen fépp foo leen a dem ci àdduna bi ñu nuyu bu baax a baax mbokki Sénégal yépp di nuyu bu baax a baax suñu ay xarit suñu ay wëllëre ku ci mel ne Omar Ba di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam saa su ne ci suñu wet ñu di ko nuyu di ko ndokkeel di nuyu bu baax baax Mbaye Diène Mbaye borom façon naaru góor yi moom tamit di nit ku baax di kenn ci ñun ah, di nuyu Sidi Ndaw ak képp koo xam si ne yaa ngi nekk ci course bi ci liggéey Jibi Njaay sama xarit borom Thiès ma ngi lay nuyu bu baax baax sama waajo ji nga xamanteni momit mi ngi liggéey liggéey bu am am solo ci walum kursu euh, di nuyu wa Louga wa Dar Jolof ah, wa Kaolack hmm, wa Thiès hmm, euh, di nuyu wa wa Tengej di ñaanal sama xarit sama genwal Mara Mbaye yalla yëkkati ko yalla fëgg boppam ci barke sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te bañ a dal kenn ndaxte na ko xam ci na mi ngi bay war ci course pic kon wa course pic nañ taxaw Mara Mbaye ñu jàppale ko. Oh, dafa tëdd boobu ba léegi waaye ñi ngi ñaan ñëpp jug jàppale ko taxawu ko wax dëgg yàlla nit ku baax la koo xamante ni liggéeyal na course hippique lu ne waaw te nag euh, ku liggéeyal course hippique lu ne ba tey yàlla dogal mu am ay ay ay feebar yaram yu xaw a jagati ñun ñëpp war nañoo jug taxaw jàppale ko moom maanaam mbay ba yàlla fukk boppam maa ngi koy ñaanal bu baax baax sama doomu ndey sama xarit di kenn ci man mbokk yi nag euh, kenn ku ne xam na ni fan yi passé lañu jógee ci Grand Prix Arc de Triomphe mu amoon euh, le 6 bi passé et fofu ci fa nga xamanteni moy France mu nekkoon course bu am am solo gis ngeen ci quelques images yooyu nga xamanteni mi ngi daw ci écran bi ñu andante ak Omar Ba junior noonu def une force délégation ñu met Souleymane Diagne ñu Père Khassim Diop ah, ñun ñëpp ñu ànd dem ci course ba mu nekkoon délégation bu ama am solo kenn ku ne gis taxaway bi nga xamanteni mom moom la ci Sénégal taxaw ndaxte réew moom boo ci nekkee da ngay xool li jëmale kanam réew mi te li jëmale kanam réew mi kenn ku ne gis na ni course hippique bokk na ci yu jëmale kanam réew mi ndaxte course ñu ci yëngatu dafa bari te dem France gi ñuy dem France ci Grand Prix ak loolu lépp ngir xool euh, lu mën a jëmale course hippique kanam ñu ànd ca wala ñu taxaw ca wala ñu xool fa la nga xamante ni buñ ko jëlee indi ko Sénégal dina tax suñu course hippique Sénégal dina jëm kanam euh, loolu bokk na ci li tax ñuy dem France mu nekk lu am am solo. mbokk yi nag tey mu fas yéene waxtaan ak yéen ci benn point bu am am solo boo xamante ni war nañ ci waxtaan ba ñaari point muy suñu Toulouse bi nga xamante ni war nañ ci dem euh, Grand Sénégal foofu ci Toulouse une forte délégation fondée par incha allah ñu fas yéene àndandoo dem ca course mu mag boobu nga xamante nii euh, at mu jot dafay am ci Cheikh Tidiane Niang dem si yàlla sa yàlla ko yàlla xaraajana ci la commencé woon ba ñëw tey ci kii nga xamante ni moo toog ci bopp CNG bi di la muy Diop. incha allah ñëpp ñu ngi koy waaj ñu fas yéene àndandoo dem ci course bu mag boobu nga xamante ni moo nekk Grand Prix Sénégal foofu ca fa nga xamante ni moo nekk Toulouse. mbokk yi nag euh, ginnaaw loolu tamit fa fas yéene waxtaan ci fan yi gis na nu benn association boo xamante ni dafa jóg euh, di wax di ŋàññi CNG course hippique ci gestion loolu nag nekk loo xam si ne lu xaw a doy waar la. ndaxte man li ma ci jàngat bi ma ci am rek ma am point maam maam maam gis-gis nag ndaxte sénégalais laa ci course hippique lay yëngatu am naa plein droit su ma gisee loo xamante nii eh, lu ay nit def la am naa plein droit am ci sama jàngat ak sama xam-xam ma wax ci li ma ci xam ak li ma ci jàngat mais man li ma jàngatee fii ñooñu nga xamante ni ñoo def seen association boobu danoo dañoo CNG euh, euh, bi taxul leen a jóg course hippique tamit taxul leen a

moom la ñu fi moom la fi Lamine Diop indi loolu moo leen arrangé wul moo tax ñu bëgg a eh, ñu bëgg a jël slogan boobu di ko di ko utiliser ci ñoom pour bëgg dal ci kaw Lamine Diop mais nag loolu du marché ndaxte jub jubal jubanti boobu la Lamine Diop nekk te it Lamine kenn ku ne xam na ko digganteem ak état wu Sénégal muy état jox lii mu yor te état nekk continuité te moom loo état bëgg rek suba ba ngoon loolu lay dox rawatina digganteem ak ñi nga xamante ni moo fi nekk. du président Bassir Diomaye Faye président de la République du Sénégal ak monsieur le premier ministre Ousmane Sonko ak ñi nga xamanteni ne ñoo nekk ci gouvernement bi ñëpp kenn ku ne la fa Lamine la fa Lamine xam ak ñi la Lamine di diglante ak ñom ñom ñoo ñu toogoon ci table ja di wax waxu président Ousmane Sonko ak Bassir Diomaye Faye ñom am lante wuñu ak ñooñu gouvernement bi kon nañu tey ta bàyyi seen wax yi ni wax ki nga xamante ni moo association bi nag te ma gis ko ci écran bi muy wax kooku bi mu ñëwee ci course gi Pique léegi matagul sax deux ans ba mu war a taxaw di jiite association ñami jiite tamit ñàkk fayda lool ndaxte am na ba gis naa fa benn magum reporter boo xam si ne bi muy dugg ci course bi man mii dama doon nàmp maa ngi raam kooku nga xamante ni man mii sax ki ki ko jiite ci association man mii sax maa ko jiitu ci course yi ngay nangu xale bu ndaw boo xam si ne bërki démb la ñëw dina jiite waaye mag nag boo nekkee mag moo xam si ne ñàkk ful la amu fayda amu personnalité ci li ngay def xamoo yaay kan course hippique nag war na fekk nga nekk ci quelqu'un koo xamante ni ñëpp dañuy taxaw naan kii li mu defal course hippique yow ba léegi nii defaloo course hippique dara du xuloo xeex rek ak ni nga ci yàggee li nga ci def nag ni waroon naa fekk saa su ne ñu lay honoré saa su ne ñu lay takkal ay médaille ndax xam bi nga am ci course ndax li nga mën a apporter course waaye loolu lépp jë jariñ course hippique jariñoo wuñ ko ndax lan lan moo tax course hippique jariñoo wuñ ko ndax xanaa xeex a xuloo yow lenn rek mooy sa devise mooy xeex xuloo tendance CNG bu fi nekk fu nekk bu ne sanctionné la CNG bu fi mënti nekk sanctionné la ñëpp sanctionné la Cheikh Tidiane Niang sanctionné la Lamine Diop sanctionné la yeneen CNG yi fi jaar yi yëpp kenn ku ne ci ayam sanctionné na la parce que lan yow xamoo jàmm xeex ak xuloo rek nga xam fu jàmm yenn dof la parce que nag wéru li ma wax rek ku wérul moom wéru rek jëfi wéru di rek ngay def am na yenn yoo xam si ne waras na koo maytu bu baax a baax rawatina nga di ko teg ci sa moroomu nawle te Lamine Diop nag neexul ba neexul mais bi mu jëlee course gi lépp ñëpp xam na fi mu jëlee course ak tey fi mu ko jëmee barki dem grand chef d'état prix fan na ko jëlee quinze millions la ko jëlee yóbbu ko 20 millions enveloppe 50 millions la la dégagé te lépp borom fas yi fayeeku na ko Lamine Diop mosul dawal daw dawal ba daw ba course bi jeex mu deseel benn fas prix. lépp lu mu xam ne bu ko defee luy jëmale course bi kanam la mu def ko Zoké yi fi nekkoon di dagganteeg xeexe ko xuloo loolu lépp Lamine Diop jëlee na ko fi Zoké bu toog ci kaw fas mu dagg la amul sama Zoké amul Zoké kii amul Zoké kaa teg lépp ci transparence moom écurie bi mu nekkoon sax almaktuma gi yëpp ak fas yi yëpp da ko jël joxe ko ni man damaa bëgg a tëdd njaaxaanaay kon kooku amul lenn loo xamante ne mën nañ ko ko taxal bi mu toogee ci bopp seen jéeg léegi 9 mois la waaye wallaahi azim li mu fi def nit def na fi 30 ans wala 20 ans te def ko fi kon kooku nag soo àndeek moom mu nekk ci jub jubal jubbanti di jubanti nag kenn ku ne xam na ni slogan bi Sonko di woote Lamine Diop loolu lay woote ci course bi mu ñëwee léegi Lamine Diop lépp loo xam si ne injustice la tam nekk ci course rek Lamine Diop jëlee na fi tëddee njaaxaanaay lépp lu muy def day woo gars ñëw la ñu toog waxtaan ci kenn ku ne gis na ni. CNG course hippique bi ben président de de de toogul di def say di def say kuréel di def lu neex loolu amatu fi Lamine Diop lu muy def lu ne day tan xaaral bañu dem ci CNG course bi buñu demé ci ci CNG ñu tok ci table ci réunion bi mu ni nangam ak nangam la bëgg ñu def ko ñepp waxtaan ci bu jubo ñu doog a def li ñu waxtaan li ñu juboo kon ko xam nga kon def na transparence kon yeen ñi nga xamante da ngeen a jóg ngeen def sen association ñi da ngeen bëgg daane Lamine Diop te barki dem ñu fal ko matagul 2 ans. man daam nekk deux ans dama bëgg wax sénégalais yépp ni ñooñu kenn amu ci fas kenn amu ci sax lenn loo xamante ni suñu fee suñu fee na ni yow ci course bi bokk loolu wax ju bari lam yu ña nga xamante ni ñoo nekk ci course bi di nekk ay di ci wax ka nga xamante ni moo leen jiite ni moom mooy moom moo jiite jiite association bi kooku ci normal va normal ñooñu wër noo topp sax ci ginnaaw kooku ndax kooku bërki démb la fi ñëw waaye boo benn fekkee dangaa ngaa nekk mag nekk kilifa te yow xamoo fooy teg sa tànk xale bu ndaw mooy ñëw di la waaye du loo kon nañu xoolaat li ñuy wax Lamine jóg bi mu fi nekk léegi yàggul te gestion bi mu commencé yàgg na nañu wax ci bilan bi mu def barki démb lu ma dix jockey nga jël leen yóbbu leen euh, Maroc ñu def stage ba samedi incha allah ñu ngi war a dawal Grand Prix foofu ca euh, euh, ca Maroc ah trois jockey war nañ ci war nan wax ci loolu jëf jooju Lamine jóg moo ko fa def. jockey yi bu njëkk dañ daan nekk fii di xeex ko xuloo ko daggante léegi jockey yi am na lu ñu bëgg ndax lan la muy jóg teg na leen ci condition yu baax nee leen carrément war leen kenn ku ne dawal nga jël sa wërsëg képp koo xam si nekk nga meilleur jockey wala jockey boo xam si référence la dinaa ànd ak yow dafa la stage ba nga nekk koo xam si ne da nga dimbale ëllëg sa njaboot prix fi ñu ko fekkoon gis nañ ko te kenn ku dee xam ne Lonase li mu ñuy jox bariwul mais Lamine Diop mooy mooy moo taxaw yokk prix ni xaalis bi nu naa di jox du du ko def fenn ci fas yi borom fas yi lañ koy jox ba jockey bi mën a am dara entraîneur mën a am dara propriétaire bi mën a am dara kon kooku soo waxul bilan waxul lu baax lu mu def xanaa yow sa poosu bopp kese wala sa intérêt bopp kese xam ne yow gisoo sa bopp rek wala yow wala yow am nga loo bëgg mënoo ko am ndax woote na jubal jub jubal jubbanti la mu jóob woote na loolu rek nga ni non. man na xep xëpp un communicateur traditionnel bu tok ci télé ñi ci ci ci ben sen youtube grand prix chef d'état ñepp di la déglu nga yëkëti ay kaddu yu ñaaw di tek teg ci bopp CNG bi lolou dafa rafetul dafa jekkul nga di kenn du la am na yenn kàddu yoo xam si ne boo ko taxawee yëkkati ko ci kaw bopp CNG te CNG da fa nga koy di ko yëkkatee CNG ki pi course hippique la état jël jox ko ni ko yow luñ ko dénk lu ci baax yow lu ci bon yow loolu boo yëkkatee yenn kàddu yu wax leen ko dañuy jël ay sanctions ñu teg sa bopp rawatina koo xam si ne yow yàgg na la sax sanctionné saison daaw jeeg ñu jaaroo hippodrome bi saison yu bari dañ lay sanctionné kon kooku du référence. ay waxam yaakaar naa sax ñi koy diglu léegi bariwul ndax ñépp xam nañ jikkoom koo xamul jikkoom mooy wax mu metti la mais koo xam jikkoom su waxee du la metti kon dama bëgg seen association boobu ngeen jëmale ko ci leneen mais pas ci session bu CNG course hippique course hippique ku leen gis ni ñuy doxale guddi toll ak Lamine Diop Omar Bao Junior Sidi Ndaw ñu ñu àndaloo ñoom di liggéey ci bi ñoom métti su demee daañu kenn ku ne xam na ne transparent la ñuy liggéey fi ñu toll li te li def lépp dañu ko teg ci yoon. barki démb bureau CNG yi ku fa dem micro yi nu fa def table ban fa def xam ne lii musul am ci CNG course bi man ba ma duggee ci course bi léegi musumaa gis lu mel noonu ci àdduna loolu nag wane nañ la mu ngi liggéey bureau yu mel noonu taabul ah, taabul table bu mel noonu bu rafet. bu njëkk dañ daan dem CNG ñu naan euh, ñu ñu euh, stade Léopold ñu ñu may euh, heure naan gaaw lañuy dañuy football ak dañuy def nangam tey ñu am suñu benn local boo xam si ne moo ko loué occupé ko def fa bureau yu mucc ayib ay kàngam wër ko liggéey moom lépp lu muy def du ko décider moom personnel day woo bureau bi ba lu ñëw mu ni leen nangam ak nangam ji kat laa bëgg ñu waxtaan ci ñu waxtaan ci bu juboo ci ñu doog a décider loolu. Lamine amul lenn lu muy décidé moom kase même xaalis sax bu ko dee génn danaan xaar leen ba bureau bi daje bu bureau bi dajee mu waxtaan ci loolu lu bureau bi d'accord loolu la Lamine di def mais loolu mooy transparent yow mi nga xamante ne da nga jug sa xol naqar yi wala nga am loo bëggul ci nga bëgg loo nga bëgg dara CNG bi amoo ko tax nga def sa conférence de presse di xas CNG bi CNG bi fi ne ñi ngi wax président Bassirou Diomaye Faye ak monsieur Ousmane Sonko président premier ministre CNG bi fi ne CNG bu baax la CNG bu transparent la.

may wax ñu naan seen bi dañ koy tas ak koo xam si dañ la fal mandat 2 ans mandat bi jeexul naan dañ koy tas loolu ay waxee na naxa saxan dang rek la seen bi kenn du ko tas mandat ñaari at lañ leen fal mandat ñaari at bi day jeex takk su boobaa nag ñu jéem a xool neneen nuñ def loolu nag ñu ngi ciy interpellé bu baax a baax madame le ministre Khady Diène kay ministre de sports ñu ngi lay wax ni course hippique amul benn problème ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci salaam kula wax course problem amna problème wala ñi ngi xex wala ñu ngi wala ñi ngi def nangam dalay wax lu ko neex seen intérêt personnel mo tax ñu genn di wax seen wax joju waye Lamine Diop ci transparent la ne ci jubal jubanti la ne tay ñi fi ne di nguur gi fi ne président Lamine Diop ñom la andal tay ñom la nak ëlëk mi ngi and ak ñum di liggéey parce que nak mënu yori fu état ni duma and ak état lolu ay waxu nax sa xandang la ay waxu jaxasa la waxu jaxasa nak kenn du ko ko rek di nga xamni li waxu jaxasa la kon président la Lamine Diop gàcce ngalaama sa liggéey rafet na sam papa nag dafa wax wax ju am solo dafa ne kuy bay baxaw te mbott mu ngoox nga bëgg koo tàcc saw baxaw dina booy yow nag dana laa bayloo bayal te bàyyi mbott yi ñu nekk ci àll bi ngoox ngooxi parce que ñoom ngoox lañ jig koo xamante ni yow da ngay ngoox du euh, janvier ba fee ba ba décembre da ngay ngoox rek yow yow jàmbar da nga nekk yow kenn mosul gis foo kontaane kenn mësul gis foo kontaane yow jàmbat rek nga nekkee at mu jot ñu di les fànn rek di ngay jàmbat rek kooku danga koy bàyyi mu jàmbat ñeneen ña fa des ñooñu ay xale lañ barki dem la ñëw ci course hippique mënuñoo wax nit du nit mën a dégg surtout seen président boobu nga xamante ni ñëpp xam nañ jikkoom màccituñ la fi nekkee kooku kenn waxu ko man kooku mun du ma wax ak moom kon li ñu wootee mooy président Lamine jóob jàmbaar jooju nga xamante ni bi mu ñëwee ci course bi léegi léegi yàggul waaye liggéey na fi liggéey bu am am solo kon gàccee ngaalaama président Lamine Diop yàgg ñi nga àndal ñëpp président Lamine Diop jërëjëf ku la waxatul lii jërëjëf barki dem rek lañu dem stage boo xam ne ni ñu ngi ko doon defee arène nationale bu Kébémer mu woo journaliste Sénégal yëpp loolu mosoo am ci course hippique ni leen yéen da a bokk ci course kaay leen ñu xamal leen lan mooy course pour bu ëllëgee ngeen mën a bind ci course seen yi ngeen mën a wax ci course mais xoolal làmb ji

mu ni carrément bëgguma accuser nit ci loo xamante ni teguma ko ci yoon parce que koo accuser ci àdduna bii ci loo xam si ne tegoo ko ci yoon daf lay yóbbu tribunal te bu la yóbbee tribunal da dina la gañe bu demee yow projet dafay gañe mu xam ni procédure bi am na lu ci yàqu mu ne ah ngir tëddee njaaxaanaay comme que procédure bi am na lu ci yàqu man nag damay woo bureau bi ñu ñoom ñëpp ñu toog ñu xool lu ñu xalaat ci loolu mu woo bureau bi yëpp ñu toog mu leen ah affaire yi kat ñëw ne mi ngi nii dajeeguma ko kenn xamul fas bii la wala fas baa la parce que ay numéro la sax xamuñu wenn fas ay numéro la légui nak comme que procédure bi amna ben fit bu ci né ben affaire bu ci né bo xam ci na tax na procédure bi agna waye sañuma accuser nit parce que instant bi bo accuser nit wala nga génnee né fas jàmbur bi mo def na nga wala fas bi mo def na nga sañ na la yóbbu tribunal parce que déjà procédure bi amna fum fu ba paré muñu nak pour lolu dama bëgg ñu ñëpp ñu tok ñu waxtaan ci biñ ci waxtaanee ñëpp ñu ko comme que lolu amna ci nañ jël affaire bi ñu gas ko ba mu ñu sul ko ba ëlëk ñu xool procédure bu baax a baax boo xam ne ci fa lañ koy jaaree mais loolu transparent la mais loolu jàmm ak salaam la tey bu ñu fi woon fas nangam lañ fi jàpp léegi borom fas jug ni ah procédure bi dafa yàqu ba pare ñu bëgg a jàpp sama fas nangam ak nangam mais kon toor bi kan lañ ko teg Lamine Diop lañ ko teg parce que dañ naan ko ba nga xamee ne affaire bi yàqu na waroo ko waroo ko waroo ko jàpp fasu jàmbur wala nga def naa nangam fasu jàmbur wala nga jiñ fasu jàmbur te effectivement loolu procédure antidopage bi ñu mujj ko del tek ko ci ndax Lamine Diop xamna droit xamna li xamanteni moko de war face accuser ci erreur kenn duko def nak la xam motax bu mu bi ñu ko ñu ko ndax procédure bi dafa am ka nga xamanteni mom nga wax safas dafa wala safas dafa am caféine koku man na man na sukkandiku ci fofu nga xamanteni fa yakko pour yobul la tribunal té bu boba bu démé day am deug sa wax loolu mo waral coow li nit ñi nak ñoom nag ñu bëgg ci jël di ci wax n'importe quoi en tout cas lam Diop man li digal man maa ngi lay encourager wu liggéeyal sa liggéey rafet na fi ko tek fofu la demal ñepp ñing sa ginaaw yefi amna transparent xaalisu kursu yokuna gis ren journée 20 journées, yi xamni ak difficulté yi nga xamanteni ci la course élection yi jaar fi élection présidentielle yi taxul mu am ngëm-ngëm am am détermination fexé ba dawal 20 journées. ko waxul wax lenen kon merci beaucoup yak staff bi nga yeneen incha dinañ ci waxaat bu neexee la ñuy waaj nag ñi ngi dem Maroc incha bu neexee la lépp lu fa am dinañ leen ko indi ci seen seen YouTube bi le 2 nekk Grand Prix euh, Afrique foofu ca Maroc buñ fa jugee incha allah ñu ngi waaj Grand Prix Toulouse Toulouse nag histoire bu mag la Sénégal mu yàggul lool pour le juróomi at wala juróom benn at ñu ngi nii at mu jot dañuy dem Toulouse fekk ci Grand Prix boobu nga xamante ne dañu koy dëggal Sénégal incha ñu fas yéene def une forte délégation dem foofu ci fu nga xamante ne mooy Toulouse fekk ci Grand Prix boobu nga xamante ne Sénégal lañ ko jagleel kon daal mbokk yi mi ngi nii lii laa xamante ni moom laa lay indiloon tey fii ci seen seen YouTube mag bi nga xamante ni moom la ñuy wax seen course ak seen mbokk seen xam ne mbay peex ma àndoon ak tey ci liggéey bi ma di ko sant bu a baax di ko gërëm vraiment moom tamit jàmbaar la baax a baax lépp loo xam si luy jëmale course bi kanam rek moom Babacar maa mi ngi ci àndandoo ko ñun ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di wax ni daal mbokk yi leeral lii rek lañ indi woon ni ci waxtaan ak yéen di leen jox dig daje incha allah Euh, samedi euh, fële ca Grand Prix Afrique fële ca Maroc bu neexee yàlla dinañ fa dem àndandoo ak télévision Futurs Médias ak seen course ak seen mbokk seen xam ne Jom Peex ñu ngi leen di jox dig daje allah ngeen jëf.